yeah asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñu ngi ziar gars man fii laa dëkk sama sama appartement fii la nekk fii laa dëkk ah gis ngeen dëkk bi nu mu setee dëkk moom bu setee rek nit yi ñoo set ba pare mairie bi aussi di jàppale waa dëkk bi pour ñu set am nga lii lii man nag ñëpp a ko bokk fii du sama néeg du sama appartement fii lii man ak ñëpp a ko bokk ah euh, mais yàlla dafa def ni yàlla dafa def ni gis nga donc gis nga affaire yaa ngi nii ñu woon leen tuuti. ay nit ak fi gis nga nu mu setee nu mu calmé dégg ko ay xale yu yuuxu doo seetloo leen benn affaire xanaa kaaw bi doo gis ay xale yi traîné. mais doo gis ay xale yi traîné doo ko gis ci kaaw bi. c'est strictement interdit xool leen nu mu setee xool leen fii fii mun naa fi sax tëdd xam ngeen fii mun naa fee tëdd fii mun naa fee tëdd ah <laughs> bu la neexee sax mën nga fee tëdd xool leen nu mu setee ah day am kenn ku ñëw ku ko mu set. defar ko tout ça tu vois nga def ni génn xolal zéro danger zéro danger ñu tagal la fi nag ay poubelle hmm? tegal la fi ay poubelle yi recyclage la xam nga yu vert yi mooy recyclage yu nga gis yu vert yëpp dañ koy recycler maanaam li nga xam ni ñoom mun nañ ko traité waat euh, indiwaat ko ci askan wi du yàqu yi boîte yi tout ça recyclage da ngay gis ni tubaab yi du ñu ñëw fekk recyclage ñu def fa mbalit wala ñu def fa ay lekk ay compost gis nga recyclage lépp éducation la lépp éducation la ñi gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi gis ngeen bien organisé tegal la lii yii nii nag moom mooy compost yeeg yi nga xam ni duñ ko mën a recycler ay affaires yooyu noonu mbalit mi quoi mbalit mi ñi nga xam ni moom mooy kuusu bébé yi euh, euh, euh, puub yi saw yi et cetera yenn yeneen affaires yi nga xam ni compost yeeg yooyu moom mooy lekk yeeg yooyu gis ngeen gis nga xoola yi moom mooy yi nga xam ne kenn munu ko recycler nga lekk sa mango ba pare euh, euh, lu mu ci kii bi xolli di wala banaana wala yi gis nga ñu defaral la ko nii bien organisé bien organisé xool leen dëkk bi daf tekk ñu xool tali bi ñi nga xam ne yéen yéen a ngi koy gis euh, Macky Sall woo jo xaaj xaajaat sax defu leen ko ba pare di leen saaga naan leen ngeen votel ko nga xool gis nga tey ji ni mu organisé woo gis ngeen lii fii kenn di fi mun a gaare parce que fu nekk nii lii bu fekkee ni dafa am ay incendie bouche d' incendie ci mbedd mi sapeur bu fi ñëwee teg day branché rek dóor taf taf taf foo gis nag am na fa loo gis am na fa gis nga ay arrêt te lii nii rue kese la rue sama rue buntu kër xoola xoola sama daal yi nu mu setee cinquante ans xaw ma bu ma ko jëndee ba léegi musuma ko fóot musuma ko fóot tilimul mi ngi nii musuma foo daal yi xaw ma ban 1900 laa jënd daal yi moom mooy sama radar yi mooy daw ak man fa partout musuma ko fóot musul laal ndox gis ngeen nu mu setee parce que amul suuf bu koy <laughs> tilimal amul suuf gi gis xool leen tali bi lii lii du riz du c'est riz la maanaam maanaam du tali bu du tali yooyu noonu tali national na riz la xool leen tali bi nu mu mu réyee xool leen ko deful ñu noq ko xool leen tali bi nu mu yaatoo gis ngeen nu mu yaatoo xool leen nu mu réyee xool leen nu mu rafetee ay nit ne ay fi ay rabu àll nekkuñu fi ay xar newuñu gis ngeen lii ndox mi bu ñëwee fii lay neige bi ñëwee yëpp bu ruisselé lay wàcc gis ngeen kenn dajjiwu ko kenn mënu ko dajji tamit kenn ndox maa ngi ne ci biir kenn mënu ko dajji Sénégal dañ koy dajji ko ñu ay lañ ñu ko organisation bi xaj benn xaj du fi dox te amul seen benn mbaam xuux du fi dox te amul buum benn xar du fi dox te amul buum benn nag amul fi dox fi te amul buum te mis yuñ ko wala ñu lekk ko xool leen tey ko ngeen gis tey foo romb rek ñu ngi fa def loo xam ni mun nga fa sànni sa mbalit mun nga fa tuur oto yi xool leen nu ñu organiser woo nu ñu rangee gis ngeen oto yi ni ñu dawee xaj bii mi ngi nii dafa am dafa am buum dafa ànd ak borom Sénégal yow xaj mi say moroom Sénégal ñi ngi dox nu ñu leen neexee amuñu sax buum yow da nga am buum am borom ñu lay yóbbu yaa ngi lekk ba suur naan ba màndi ñun <laughs> ñu Sénégal nag say morom ñi ngi fay dox amuñu buum amuñu buum ci baat kenn xamul ko moom yu rage di mataate di di di joxe ay feebar et cetera et cetera donc lii lépp setaay bi organisation bi lu ñu war la lu ñu war la lu ñu war a mun a am appliqué lu war a am ci suñu région yi la a jomb loo waruñu war nañu war nañ ko am war nañ am parce que am nañ compétence am ko am nañ alal gaa nga fa nga fa mais malheureusement ay la ñoo koy lekk ay imbécile ñoo koy ça fait quatre mois benn dëkk lëmb quatre mois assemblée nationale ba ma nga section ordinaire amul section extraordinaire dara amu fa ngeen gis ci buntu kër yi sax dañuy am ay passa xool leen fii lii gouvernement bi defaru ko lii <laughs> bunt yi yaay yaay defar say fleur defar say kii tout sax mi ngi nii naaj paysage vert boo xam ni yow mun nga fi toog di teg sa chaise bu naaj bi tàngee nii nga bugg ci teg sa chaise toog clean jàpp sa self xam nga et cetera mi ngi nii xoolal nu mu yaatoo gis ngeen <laughs> tali yi donc lii lu ñu war la lu ñu war a am la ñun parce que nit yi dañu war a jox cër dañu war a cërale dañu war a xam ne amuñu affaire ak ay mala amuñu affaire ak ay xar ak ay bëy ak ay mbaam xuux lii nag mooy développement doomu aadama bu ñëwee ci dëkk yi mel nii yàgg fi développé wu xam consciemment ni lii nii lépp lu ñu war la lu ñu war a moom la lu ñu war a am la donc bu ñëwee gis ay ñuy wax ay waxu ay lampadaire wala da leen di def ree parce que day xam ni ñii ils sont en déphasage dañ leen a romb dañ leen a raw gis ngeen fii eh, ñëpp a yor ay oto <laughs> fi Sénégal da ngay jigéen ñi jigéen ñi dawal oto fii gis ngeen ñëpp dañ leen di jox accessibilité ñu am ay oto lépp mun nga ko mun nga tey lépp banque sax sa banque bi nga am sax da lay proposer kaay ma labal la ay oto kaay ma wutal la oto man mii taxi chaque jour ma am sama banque mu envoyé ma benn euh, genre euh, lettre wala benn genre euh, message comme quoi que boo buggee ma labal la oto oto ngi nii mun naa la lebal oto maanaam banque bi ci boppam moo may labal oto moom moo may wutal oto labal ma ko ba pare temps nga koy fay nii nga koy fayee mu 40 ans sax bu la neexee nga fay wala 20 ans donc gis nga léegi les possibilités yi nga xam ni ñii ñi koy am di ko def Sénégal ba ngay gis benn jigéen bu yoro oto ñu ne jigéen bay dawal oto fii amul jigéen amul góor góor jigéen sax day dawal oto waxuma laa góor wala jigéen c'est les possibilité yi nga xam ni ñoom seeni i njiit yi dañ ko jox seen waa dëkk parce que dañ leen nekk dañ leen jàppee ay nit jàppewuñu leen ay mala jàppewuñu leen ay rabu àll dañ leen a jox cëru nit cëru nit maanaam li nit yi moom buñ ko jëlee Sénégal ñàkkul dara am na ay ressources naturelles am na lépp mais Euh, voilà ressources humaines am bonnes, mais nit ñoo bonnes, ni ñoo bon bonnes, ñoo yes am ñoo xam dañoo jombalé sen bop lepp ñom pour ñoom ñoo dund dund gu baax ñoo dund dund gu mucc ayib nek ñoo am ay écoles yu ñoo ñoo am ay lek yu xam nga donc tu vois gis ngeen euh, lepp euh gis ngeen bi <laughs> gis ngeen bonnes, gis nga organisation yi xol leen auto yi ñu

tàmmuñu bruit bu ñëwee Sénégal bu ñu duggee dañuy dañuy sentir jungle dañuy sentir ni ñi ngi ci àll bi. parce que foofu nit yi comme ay rabu àll nit ñi gars yi dañuy mer am ay rancune soxor iñaan bon di yéene nit yu bon. parce que nit yi ñoom développé wuñ seen xol yi ñoo lëndëm seen xol yi ñoo ñuul avancé wuñu donc dañuy foog ni ku avancé rek da nga da nga leen di jiitu donc bu ñëwee fii ñun amul xool xool leen nu ñu respecté woo kenn du fi ne pepp ku fi ne pepp ñu noq amul pepp fii xool leen oto yi di daw yi di daw amul pepp xool leen nu mu organisé woo amul pepp non bis bi di ñëw à l'heure bis baa ngi nii day ñëw à l'heure tak boo bëggoon tey boo taxee fii bis bi ñëw tu vois gis nga organisation boobu noonu ba Sénégal da ngay ñëw mu mel ni jungle ñëpp di corné pep pep bum bum et eh, damay toj sa et eh, damay kat sa et eh, damay dëgg sa xool yi bon

lumuy jël hein électrique gis nga yi panneau électrique yi gis nga mi ngi ni hein circuit électrique nga ñëw brancher sa auto xolal nga ñëw brancher sa auto ñu dañu am problème courant lan lañu amé li ki fu né ni brancher na otom dem yonam comme comme gasoil Sénégal ñi ngi ci gasoil ak essence ñi fu né ni fu né ni gis nga li électrique hein panneau électrique la circuit électrique nga ñëw brancher gis nga am na air <laughs> nu mu amee électrique bi am na air am na boo xam ni air la et cetera et cetera ça c'est du développement <laughs> lii gars yi ñoom ñoo toog di xalaat war nañ ko am ñu am ko du lu extraordinaire dañ ko war a am dañ koy am di ko développer tu vois am na tamit boo xam ne da bu dee yow sa oto air lay chargé air nga koy chargé bu dee courant courant nga koy chargé bu dee ndox ndox nga koy chargé loolu yëpp am na fii loolu <laughs> lépp am na fi léegi lan moo tax ñun munul am ci ñun lan moo tax munul am ci ñun lan lan la ñu gënee ñun yàlla may nañu air bu baree baree bare air buy daane ay nit yàlla may nañu ko mun nañu ko exploité yàlla may ñu ndox Sénégal lépp ndox la ndakaaru njaay jal jóob ndox moo ko wër te gars yi dañu am problème mu ndox bu baax ndox mu baax sax dañ koy am problème te ñun ndox moo ñu wër naaj bi dey tàng-tàng dañ naan quarante cinq degré dans l'ombre sénégale yi di ko dundu te mënuñu am courant mënuñu mënuñu énergie éolienne bi mënuñu ko exploiter énergie solaire bi mënuñu ko exploité te c'est que il faut ñu xabal leen ni yàlla du développer réew ay réew dëkk ñoo koy développer dëkk bu bëgg seen réew jiital seen réew comme nu Guy Marius Sagna mel Guy Marius amul ñaar Sénégal amul ñett Sénégal Tay bu mu ma kan patriote Sénégal Guy suis Sagna wax Guy c'est le prototype d'un patriote ku mel ni mom un patriote Moy doomu Je suis xamni du alalu ci ay na des années durant ko calculer total un ko xamni tay ji 4 mois assemblée nationale nous avons ne salaire vraiment beaucoup parce que la quatre mois assemblée nationale Macky Sall ko nañ fa nationale bi passé élection législative On milliards nit yi sonu assemblée nationale n'est-ce pas gis nga dafa vert ma jall ñu def assemblée nationale mois, xamni tay mois ni Macky Sall majorité

tey jii bu doon fii la ci nasaraan yi nga yow euh, député à l' assemblée nationale nga jóge sa kër dox 10 kilomètres balaa ngaa yegg assemblée nationale dina am ñu mu dee dee dee mille canadiens yu la topp mille canadiens yu la topp wallahi la azim parce que la conscience citoyenne dafa développé wu fii doomu aadama yi te dañoo yeewu fii yeewu benn xeet yeewu boo xam ne du doo leen naxee di n'importe quoi doo leen naxee ay tali yii parce que dañ ko màggaalee doo leen naxee ay tali tali yii doo leen naxee doo leen naxee ay tali lii <laughs> doo ay ay poto lamp poto lamp yaa ngi doo leen naxee ay caméra doo leen ay caméra donc ñii développement yi ñu am donc am na loo xam ne doo leen ko naxee te Guy Marius Sagna lu mu génn noonu di dox dox ba ñaari journaliste ñëpp journaliste ko topp ñeneen ñi naan ay maa ji ñi ngi sa ginnaaw maa lay yabal maa lay yónnee gune gi maa lay yóbbante bu doon fii la tey jii Guy Marius Sagna génn buntu këram di dox balaa yegg assemblée nationale dina am dix mille canadiens yu ko topp wala dix mille américains yu topp ci ginnaawam di ko pulvériser di ko jàppale donc il faut sénégalais am benn fibre patriotique il faut ñu bëgg seen réew il faut seen réew jaral leen lu ne réew daf la war a jaral dund daf la war a jaral dee bu weesoo lolu xaram ma dem parce que verna voilà xoolal respect ñëpp a taxaw ñëpp a taxaw donc voilà <laughs> dëkk yi li moy organisation xol ndessal amul pain mais lan motax war ngeen demandé wu lolu lan motax ñi ak auto yi ni ñu paré lepp ñoo leen ëpp auto foofu ndax auto yi ngeen di jël yu nekk Sénégal yépp fi lay joggé ak ay Amérique ak yoyu amu leen sax ay auto oto yu fi jóge ay Canada lay jóge ñu indi ko foofu ay Amérique ak ay France ak Australie amu leen ni oto ji ñii ñoo leen ëppi oto ëpp leen ni nit xool leen organisation bi police newu fi kenn nekku fi kenn ay feu ñooy wax ak ñoom ay feu ay feu bii tak tak tak tak tak ñii jàll ñii xool leen ñii signalé leen kenn amul fitu jàll fii te police newu fi sénégalais bi nak day yéenu ana police bi isi new fi xaram dem sama yoon man xala ma nang kene pep way yow la ngay mëna def li way yow do traverser way fessé mënoo nopp yow yow fessé way yow mer dul nang voilà gis ngeen c'est triste nak mais bu weesoo lolu dañ leen di xamal ni euh élimination Ousmane Sonko bi nga xam ne nguur gi jógte nañ ko boobu ba léegi fii nag amul ay sawu mbedd nag <laughs> amul ay sawu mbedd am na tamit ay ay douche yu nekk ci mbedd mi ay douche yu set sax ay douche yu nekk ci mbedd mi am na fi boo sawee génn douche bi day tëju raxasaat douche bi yëpp douche bi day tëju raxas boppam raxas boppam sotti ndox mi sotti omo bi raxas boppam ba mu set def veer <laughs> te loolu du dara fi maanaam am na ay douze mbedd yoo xam ne bokk waxuma leen douze marché Sénégal yi de yu xasaw yu salte yooyu nga xam ni gars yi dañuy day ba day fooy toog wala fooy fooy teg say tànk dañuy day ba day ci kaw day ba partout partout <laughs> donc <laughs> voilà saw ba saw fooy taxaw da ngay ubbi douze marché Sénégal yi doo ñimee dugg parce que dañuy puub ba puub ci bunt bi puub ba raata la ko ci bunt bi saw ba saw ci bunt bi <laughs> donc moo tax douze marché yëpp ñu éliminer ko <laughs> ñooñu moom ñu nit dañoo rombu doon nit dañoo rombu doon nit yàlla dafa créer nit ñoom ñu nit nitaatu nit ñu indi nitaatu nit nitaatu nit <laughs> donc voilà euh, voilà donc maintenant fii nag dafa am douche yoo xam ni douche yoo xam ni kenn du leen raxas ñoom ñooy raxas seen bopp da ngay bës dafa am verte ak rouge boo bësee verte bi mu def teint ubbeeku nga dugg bus mu teju bu tejo bo nekké ci biti da ngay gis né amna ko fi ne lu tax parce que day rouge bu koku génné kenen du mëna dugg déedéet douce bi mom naan la déedéet bu dugg bu dugg douce bi mo lay wax lolu bu dugg ne la xaaral ma raxas li fi sa waji def fep mu waccé pou yi bu dé dafa puub fep mu waccé saw yi bu dé dafa saw raxas fofu ba mu set après def ko verne la aca mu nga dugg douce yi ñoy wax ak nit yi douce fi douce yi ñoy wax ak nit yi <laughs> nit du wax ak nit amul ku fa tok nan ay gardien bu fa tok nan eh <laughs> loolu loo fi def pou pour fukki dërëm saw juróomi dërëm der amul lolu douche bi mooy te gratuit la gratuit donc <laughs> voilà loolu lepp vraiment wala xalé yi épanouissement ci école yi sont là ils s'épanouissent les jeunes qui s'épanouissent bon damay romb gis nga école la li école la ils s'épanouissent ils sont bien amul ay sàcc balu boy yi gis nga fi ni ne bu doon Sénégal la xol boy li jënteetuñ bal bi mais je la dire parce que tout simplement fii amul sàcc hein? ah Amoul amul sàcc bal bal ne ça coûte rien du tout ok allez jouez <laughs> je suis fort hein, je suis gaucher ah, de rien de rien c'est gentil je suis un joueur international voilà xale Agni, <laughs> ils sont à l'aise ils s'épanouissent ils s'épanouissent non pas ñun sañu doom yi sañu problème yu ñu am suñu problème yu ñu am lañ leen di sëf xale yi seen bopp yi dañoo toj suñu doom yi seen bopp yi dañoo toj seen yaay yi feebar yi ñu am lañ leen di gàll seen papa yi feebar yi ñu am ci mbedd yi lañ leen gàll calcul bi dafay feeñ doomu ci suñu doom yi dañu problème parce que dañuy yow duñu lekk duñu naan seen papa takk seen yaay amul fukki dërëm c'est inadmissible barki démb maa ngi yor boy bu envoyer ben message xomako ma ko ci adam ak Awa indil ma ay facture jabar ji mo am dom ay facture Mola laa boo ma dimbalewul aduna tukki sama jabar a ngi nii hôpital dama sama dom nangam mané mais attends yow ba ngay tak sa jabar te yoro lo jende ordonnance bang kay koy tëddee macha allah yàlla nangu te yoro ordonnance mba nga dem bam ne putub dom nga jare ordonnance ya ci internet bi day wëri ku lay ñu jëndal la ordonnance sama waji <laughs> lool lu ko fi jar lan moko fi jar est-ce que yalla mo la ko tek est-ce que mo ne amo loy tak doomu jambur di tak diko di ko tëddee allah loolu dagan na di tak diko di bam ne putub dom nga dajale ab ordonnance yuk sa di wër di wër ci internet bi ku la ko jëndal ah te man ñamuma ñamanuma xamuma na ñam ñam ñamee nga am sab doom moo waral la ko jëndalal ordonnance ah <laughs> damaa rus waa ji rek mais ko woon wax sama waay ah man kat ba ngay wullee ko ndullee ko tulli nekkuma fa di dégguma dégguma ay <laughs> xawma lu muy saf nga nekk ca nekk ca nekk ca ba yàlla may la ca leer ah <laughs> engagé wul ah man kat xawma defuma ca dara dégguma uy safu ay war a jënd ordonnance <laughs> xale boobu tam ñëw fi nga tooñ ko indi ko fi ci indi caaxaan amoo dara yoroo dara yoroo lekk loo nan indi fi doomu jàmbur indi fi liir indi fi nit nii nii nii nii ne nag léegi gémmiñ ko yàlla xar def ci tooñ nga doomu jàmbur tooñ nga yaay ja tooñ nga doomu jàmbur mooy xale bi nga fa indi ci àdduna boobu ah et cetera et caaxaan bàyyi leen dëkk bi ñu naan la ay wutil jabar ak takkil jëkkër amu leen amu leen fukki dërëm di dugg ci ay mbir yoo ngeen amut moo tax sëy yi a yàgg da ngeen di nekk di doxaan di fen gel yi di leen fen fekk yoru leen ñaar dërëm moo tax gel bu ci sëy deux mois trois mois mu génn boo ko ne ça va naka sa chéri sa naka sa jëkkër mu ne la fase naa ko ba yàgg tas nañ tas nañ tas nañ parce que góor yi dañoo mën a fenn Sénégal fenn lañ mën a def dañuy dem abbi ji di doxaan gel yi yoruñu ñaat dërëm lu suukar café yoruñu ko liggéeyuñu xëyuñu gontuñu seen salaire matu cinquante mille wala bu ko wala quatre-vingt mille wala quatre-vingt-dix mille loolu dañ cee mën a yor doomu jàmbur parce que yaa ngi génn ci koñ bi naan la wutil jabar wutil jabar nga dem takk xale boo xam ne yoroo fukki dërëm yoroo ko loo lekk yoroo ko nga dem jël doomu jàmbur ñëw pour koñ mi ne la wax legui luñ la doon sonalé takil jabar do luñ la ko sonalé parce que ya nga yor doomu jambour doomu jambour go xamni da ngay yeewu suba ba ngon dugg ci internet bi di ñaan hein mala dama lijeentil 200000 ne ki dama jox 100000 fofu mala japp ci way ba jappé mu ñaaw de ba jàppul mu ñaaw sa way bo yoru gëmal yalla gëmal yalla doomu jambour dañ do ko yoré ci kër du lek ak naan kessé du affaire du xar ak kay beuy ki mbam xux du xar du xar du xar bu ñu wutal ngooñ xaaral ma wutal ko ngoon jox ko mu lekk te naan xaaral ma nangam nangam boo amul muñal boo amul muñal muñal moo tax benn say yàggatul Sénégal koo gis ku la ne salaamaaleykum tey takk takk nañ ma dans trois mois quatre mois ba cinq mois may leen cinq mois ñu génnaat <laughs> ça va commencé bëri waat tànk ci internet bi buñ bëri watee ci internet bi rek dañ leen a fase wala ñu fase waatee buñ bëri waatee buñ buñ leen takkee ñu raar buñ commencé bëri tànk rek ah, am <laughs> ña ngay waat keneen ña ngay taxawaalu ñi ngay wëriwaat ñëw toog nag moo tax Sénégal jigéen boo ci laal mu jooy ko ci <laughs> salaamaaleykum mu jooy parce que mi ngi ñëw <laughs> triste histoire ku ñoom ñëpp yor ay histoire yu triste moo tax chaque semaine am kenn ku ñëw jooy paccal leen paccali bët ko génne rongañ ñi ñoom ñëpp triste ki naa mu muñal maa la gën a garaawle histoire muñal maa la gën a garaawle ñoom ñëpp yor ay histoire tëñëx yakam ti gëmuñu yalla ku nekk bëgg sey par force ñi agressé góor yi kaay takk par force kay takk kay kaay takk may <laughs> sa way bon nit bi boko topé nako kay ko kay sa way <laughs> ma do ko ne kay fase ma dalay fase dalay fase parce que ya ko top ne ko kaay takk di la doxaana <laughs> kay waxtaan ak sam papa kay waxtaan ak sam papa de sam papa de neena bëgg na la xam sama yaay neena xana lool moy gawal tuti ñew ñëw mu tak la yak yow ya ko forcé kay takk bi yow ya ko forcé <laughs> moo bu ñëwee ñam ñam kumpa ga dem yoonam bu ñamee kumpa ga bu ko wóoree ni kumpa gi bu takkee la koy ñam mu takk ñam <laughs> bàyyi kumpa la kumpa gi seey na amatul kumpa loolu mooy problème bi loolu mooy problème moo tax koo gis gel yëpp a ngi pàcc li bët émission la ñuy xaar ñoom ñëpp a yor ay histoire rek ñoom ñëpp yor histoire te koo ci gis nag moom histoire am waa ji da nga nekk magum jëmm muy magum jëmm mu futti tubéyam nga futti sab sab silib ngeen def taatu nen toog ci lal ba wullante ba seen taat yi tàng nga génn naan <laughs> daf ma nax daf daf ma daf takk digoon takk ma daf maa nax <laughs> sa man boo ma diggee takk dinaa di nga ma wulli te takkoo ma kon daal kon yow kon gel yi daal koo ci dig takk rek après yaag moom daal ay waay kon dig takk égal takk daal kon Sénégal daal bu ma la diggee takk rek mooy man maa la moom léegi c'est gratuit damay dóor ba mu neex ma <laughs> rek mais sa lu may dox di takk lu may dox di takk bu dee bu ma la diggee takk rek nga commencé nga futteeku ba set wecc ma futteeku comme nuñ ma jut juree ñuy nekk ci position kama sutra jóg ak daanu dëpp ka dippi ñam yi metti <laughs> lu ma fay defati lan laa fay defati lan ragal leen yàlla ragal leen yàlla bàyyi leen seen ndar ndarpaan yi ngeen di tayle vite fait bàyyi leen futteeku bu gaaw bi bàyyi leen futteeku bu gaaw bi taf taf taf taf nga ne ah, roosal roofal xool lu la jox baax na boo leen dundee seen yi ngeen dund noonu ñun soxlawuñ ngeen ñu koy expliqué soxlawuñ ngeen ñu koy expliqué loolu du fi yool yaa futteeku mu futteeku ngeen ngi jër nekkat ci suñu yoon naw ci suñu yoon nekk ñun dañoom am problème mu Sénégal suñu réew mii dafa tàkk tasaaroo donc ñun ci loolu lañ nekk loolu lañ nekk di lijjanti ñun ñu ci seen pàccali beut yoy ngeen dig ci seen beutu seen jooy naafeq yoy ñun talu ko amuñu seen amuñu seen jot ñun rew mi tak na jamono ji kenn lekkatul kenn tul kenn fajotul kenn fajotul kenn barki demb demb la dem fi gungé ben euh, ben ben maire bu am cataract ben maire bu am cataract ma gungé ko ñu dem hôpital ñu koy xol xol beut ne ko waaw docteur bi moom ne ñu duñu nit nii duñu docteur bi ma gunge ko ba toog docteur bi dugal kii bi xool bi di tak tak li cataracte la tak tak tak tak lii di ko expliquer ba man mi amul cataracte sax ma comprendre bët baa ngi nii cataracte baa ngi nii gis nga cataracte bi lii dafa day récupérer espace noir bi nekk ci bët bi Sénégal ñëpp a cataracte quatre-vingt-dix-neuf pour cent suñu maire yeeg paa dañoo cataracte <laughs> xaaral ma expliquer leen rek donc expliquer ko ne ko mun nañ def opération bu dee cataracte ça dépend bu dee cataracte bi doyul waar trop mun nañ la defal ñaari bët yëpp benn bi opéra cataracte nag kenn du ko ay xar di génne comme Sénégal duñ la wax kenn du xar di ko génne cataracte mun nañ ko opérer par laser système boo xam ni day mel ni you ci bi ñu toj ko day après day day day vidéo vidéo ci après dañ def lanti lanti professionnel yo xamni lanti ben bi jorul deuxième catégorie bi buñ ko sol verre donc trois jours nga commencé gis di dem sa sama yaay dafa ñëw hopital euh, euh, euh, fa la ma fekk ñu ànd dem hôpital mu ne bëtam bi day ruux day metti docteur bi xool ko bët bi xam nan la docteur Sénégal ba de barke alxuraan sama bëtu yaay ba la toj toj toj toj carrément toj ko ba sama sama yaay léegi patt bët la yor nii sama yaay patt bët patt bët nii bët bee patt docteur bi neew fa naan day de opéré de da ko da jël poso bënn ko bët ba tuuru ba jeex tàkk mu ne ko léegi yëgatoo mettit mu ne ko déedéet mu mu fattal ko bët bi léegi léegi sama yaay benn bët la yor nii la def ni cataracte cataracte wallahi la azim Sénégal docteur moo ñëw bënn bët ba bënn bënn muy tuuru mu bënn ko ma parce que daf ne ko rek day metti day ruux ba <laughs> au lieu mu opéré ko rek mu bënnal ko bëtam ba bënn ko ba bët ba tuuru ba jeex dàq ba part bët la léegi sam bi daa gumbale benn bët benn bët di ci góorgóorlu <laughs> dëkkub doomi xaraam la dëkkub xaj dëkkub xaj dëkk boo xam ni sawaay moo tax ñu ne ñoom il faut ñu éliminer Sonko Ousmane Sonko nañ ko éliminer ba mu jóge fi comme ça ñun ñu def sañuy continuer def sañ saal boulot loolu nag dañuy jaral bakkan bakkan ñun ñoo leen gën gis nga loo leen bax ñu ngeer ko lu ngeen bëgg bëgg nañ lu ko raw Ousmane Sonko c'est notre dernière chance parce que gis nga bu ñu éliminer Ousmane Sonko keneen du ñew parce que sama genre gi man bu ñu éliminé Ousmane Sonko duma ma duma ñew ma ñëw ah. tuma dara Sénégal du ñew ñëw tuma Sénégal bëgguma fa am dara bëgguma fa jël dara je vais me concentrer sur ma vie d'ici qui est une belle vie nice alhamdulilah machallah allah maa ngi liggéey di xey du gontu di fay samay bills di am sama lépp ma ñeew kenn fi ñewuma ci dëkk bi ñewuma fi kenn donc voilà bu tey buñ caaxaane ba Ousmane Sonko baña fa <laughs> ñëpp dañuy tok bailleur de fonds yi ngeen di gis nii nga xam ne ay jeunes lañ nekk ci kaaw bi di liggéey Ousmane Sonko dañuy laajte léegi 600 millions gars yi cotisé ko 600 millions 600 millions yi am <laughs> amu leen ko di yéen Sénégal bu ko leen bàyyi woon yéen kese ne moodu moodu yi gars yi nekk ci diaspora bi bu kenn cotisé kon Ousmane Sonko fukki dërëm du ko am parce que yekk lekku leen naanu leen kon 600 millions foo ko déggee mooy 400 millions yi yëpp yëpp yee ko cotisé yoru leen lu lekk lu ngeen <laughs> xam ngeen ni kon donc boo leen sàgganee ba Ousmane Sonko bañ toog ba Macky Sall ak banditisme am ak ay gangam ak ak bande malfaiteur am bi ex ba xañ ko loolu mooy ñax ñàkk ngeen yéen. ñàkk ngeen ma ñàkk ngeen samay morom ñàkk ngeen ñii di cotiser ay quatre cent millions cinq cent millions ñàkk ngeen ñëpp ngeen torox tot di ngeen gën a torox di ngeen gën a torox laa leen wax bés boo leen sàgganee ba maki Sall ak ay pexem pexe mi salte ba jéem a xañ Ousmane Sonko élection yi mooy di gën a torox parce que ñun dinañ leen bàyyi àdduna ak alaxira àdduna ak alaxira aduna ak alakhira loolu nay leer léegi nak di ngi commencer inshallah mois de mai bi dina retourner ak yéen ci comme l'affaire Adji Sarr yëkkate nañ ko donc sama dossier la dina retourner wat les lives d'enfer wax leen li nekk ci tribunal ba lan lañuy ñuy Ousmane Sonko lañu lañ waaj tek lepp tout dina leen ko commencer di leen tegal bala bobu nak dina len expliquer lima def lepp wala lima def et cetera ak tamit li nga xamni wa nguur ki tamit jëm nañ ma approcher pour jëm ma manam gennelu ci affaireu Adji sar pour ma noppi ci affaire Adji sar, pour manam lepp lu ma bëgg ci aduna ñu defal mako lolu mom moom jot naa ci proposition wa nguur gi ginnaaw buma defé sama plan avant ñoo def affaire mois de mai bi ñom ci sen bop jox nañ jëm ci man pour proposer ma àdduna ak li ci biir pour buñ commencé songu Ousmane Sonko ma génn ci sama loxo ma bañ ci yey <laughs> yab ci waaye waye nak lolu yooyu yoyep antuwul parce que duma sétane ñuy sank Ousmane Sonko ci sama kanam dina leen expliquer tout ce qui s'est passé pexe yi nga xamni ñom ñoko def ba def pexe yi ak pexe yëpp tout tout ba dina len wax sax avant le 18 euh, le 16 mai inshallah début procès bi dina len wax li ngeen di nara a fekk si ci biir palais de justice parce que ñom paré nañ lépp li ngeen liñ leen nara tégal tegal liñ leen bëgg sétane lo liñ leen bëgg wax liñ leen bëgg lepp dina len ko tégal manam dara di ngeen di dem di di gis lepp lu ma wax comme si dicté préparé incha donc nous ngi taxaw nañ mois de mai on commence les choses on va vous expliquer comment va se passer ce procès là procès bi nous musel préparé pour éliminer Ousmane Sonko parce que gars yi dañoo foog ne on affaire Mame Niang mais non affaire Mame Mbaye Niang bi pour affaire Aïssar pour éliminer Ousmane Sonko l'affaire Aïssar, est vrai bi moom mooy li nga xam ne éliminer Ousmane Sonko mais Inch'Allah, nous allons dinañ leen comme film bi ni ñu leen ko tegaloon dina leen def benn flashback indil leen nu affaire yi demoon ba indil leen plan ba ma tegoon très structuré ba indi leen li nga xam ne nag boo leen demee ca palais de justice ba incha allah moom lañ leen di fas yéene won moom lañ leen bëgg a tegal moom lañ bëgg a dugal ci xelu sénégalais yi pour éliminer Ousmane Sonko. ñu donc taxawaat nañ jóg nañ comme nuñ ko defee woon bu fekkoon ni tey jii. ñoom lañ doon jéem ci ñun buñ ko defoon kon tey duñ mun a taxaw di wax ci Ousmane Sonko waaye ba ñu doxee ñëw ca coow la ba muy bëri ñoom ñëpp ñëw nañ foog nii man je la là pour éliminer Ousmane Sonko ni ngeen ko defee ñoom defee nañ ko noonu ñëw nañ ba ñëw gis ma ne ma moo laa ma leen waaw ñu ne ma waaw bon lu ñu bëggoon moom mooy nga wax ñu lépp li nga soxla ñu defal la ko nga raxas sa loxo ci l'affaire aji saar Ousmane Sonko lépp man leen xalaatuma ko tey xalaatuma ko xalaatuma ginnaaw suba tant que yéen a ngi bàyyi affaire Adji Sarr ma noppi boo leen ci jógee <laughs> ma jóg donc comme ñoom nee nañ jóg nañ jógaat na kon nag nañ braqué euh, euh, satellite yi di waajal mois de mai bi incha allah

ñii sànq Ousmane Sonko duñ seetaan di dundu ñu ne Ousmane Sonko di dem ci élection yi ñu seetaan di dundu ñii ñii ñu toroxal ba fii ñu toll nii di ñu toroxal di ñu continuer di ñu toroxal. kon nag à bientôt incha allah les gars One Love gis ngeen dëkk bi nu ndeysaan xool leen dëkk bi nu mu mel xool organisation bi xool organisation bi xool organisation yi. mais ana mais loolu ma laaj ana xale yu ndaw yi ana xale yi comme Sénégal xale yi ñuy taxaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jur sànni ana jur sànni Sénégal ana fi ana jur sànni demande leen ana xale yi ana xale bu fiy romb xale bu mel ay xale ay ana ana xale taalibe yi ana xale yi mel ne ay taalibe te du ñuy taalibe ana ñu gisu leen leen fii gis ngeen gisu leen leen fi ana gis ngeen gis ngeen jur sànni gi ngeen war a bàyyi yoru leen. goru leen yàttu leen jur sànni gi ngeen war a bàyyi xale yi nga xam ni solu ñu lu baax ñoo jaxasoog taalibe yi kenn xàmmeewul xale taalibe ak xale jur sànni Sénégal dafa am xale jur sanni ak xale taalibe xale taalibe nag moom mooy ñi nga xam ne seen bàyyi di jur ñoom tamit mënu leen jox lekk nii naan plaisir charnel bi rek ñu jël leen yóbbu leen naan ay nañ jàng ji daara ak tam ñi nga xamni ñom yobuñ yóbbuñ seen doomi daara mais dañuy putu putti di jom di xam rek di am di di di jur di sanni di jur di sanni di jur di sanni xale bu ndaw am 25 ans am 40 dom wala 32 dom wala ben boy bu ndaw am ñent jabar te yoruñ fukki dërëm wala <laughs> ana xale ndaw yi xaar ñu xaar xale bu ma sarax xam nga tay ji bu ma yoron fi tay suukar ak mbokk ak dugub ñina ma saraxé ko kan la koy sarax kan la koy sarax <laughs> ku ma ne kaay mi ma saral nga ne ma tey ma ña daqaar sama am gis nga ah anañu anañu tey ma daqaar sama am kenn les gens sont là xiifuñu maruñu raflewuñu xaj yaa ngi ni ñu takk xaj yaa ngi nii ñu takk ah ñëpp ngi nii dox seen soxla dëkk bi set wecc organisé ana jur sànni gi len sen xel ci yalla bàyyi len ñi ngeen di tak ta amu len fukk dërëm bàyyi len doom yi ngeen di putu putaral melni kuy concours équipe nationale jappale len ñu te yalla tax ndank ndank doucement calmement lentement aya bimbam voilà foofu la yem ak yéen bientôt inshallah peace and love voilà ñu ngi ni tout le monde tout le monde ah xool leen lii tubaab bi def xool lii xool leen lii <laughs> xool leen lii ay lamp ak lépp a ngi ci xool leen xool leen buy taw tay fi ngay ñew di dox <laughs> xool ci mbedd la mbedd la de xool leen lii hein? xaaral ma laaj euh, bonjour excuse-moi euh je demande le euh, you speak English ok ok ok dama bëggoon laaj kan mooy maire bi fii parce que Sénégal ñoo <laughs> parce que ku def lii war nañ ko xam tamit de bonjour excuse-moi euh, c'est qui le, maire d'ici de, Le maire Tu connais pas Mais avec tout ce qu'il a fait pour toi, regarde, tout ce qu'il a fait pour toi, tes infrastructures, il fallait le connaître quand même. Le maire de Montréal Non, de, mon, pas Montréal, ici. Le député Oui, le député, le maire. Le maire de Montréal, déjà, il s'appelle comment Tu ah, tu connais pas, <laughs> avec tout ce qu'il a fait pour toi, regarde. Ah, mais non, mais arrête. Ah, mais non, non, non, il fallait connaître quand même. <laughs> voilà bonjour excuse-moi euh, euh, euh, ok ok ok bonjour excusez-moi je demande le nom du maire de Montréal Hmm? C'est une femme? Oui, c'est euh, Valérie. Euh, c'est quoi le nom de Montréal? C'est Valérie Laplanche? Laplanche? Je suis pas de Montréal. On n'est pas de Montréal. Ah, vous n'êtes pas de Montréal, ah, d'accord. Valérie euh, Valérie Plante. Mais vous, vous, avez ses réalisations, vous avez vu ses réalisations ou bien. Non, on la voit pas, vous n'êtes pas satisfaite ou bien Ah non, non, mais on ne demeure pas ici. Ah, ah vous ne la suivez pas, ok. Donc vous êtes satisfaite quoi ok voilà <laughs> gis dëkk bi xam parce que xoolal ñoom dañoo tàmm yow ñu defal leen lii defal leen ay pavage defal leen tout xoolal garab yi di dox de tout xoolal poto lamp yi ni ñu tegaloo xool leen poto lamp yi ni ñu tegaloo xool leen poto lamp yi xool leen poto <laughs> poto lamp yi xool leen lii lii solaire la lii ngeen di gis ni solaire la xool leen poto lamp yi xool leen xool leen voilà <laughs> affaire bi lii la